masawa isda comme li ñu dafa demoon Màkka aji ba mu demee fekk ñu tëj Kaaba ka Kaaba gi dafa mos tëj Kaaba gi kër bu tëj tëjee rek Camara Saz Camara Kaaba gi kër bu tëjee àddinaay tukki midi matin soir guddi bëccëg suba ngoon tisbaar tàkkusaan timis gee quatre heures du matin une heure cinq yépp Kaaba gi du tëj buy tëj yenn porte la ñuy tëj raxas lii ubbi lii bale lii ubbi lii waaye tout le temps nit ñaa nga fa ker bu tëjee àddina tukki ah ah waaw waaw kon déet xaaral tuuti su ko defee kon euh, kaaba gi xam nga nit ñi dañuy wax naan Seydi Hadji Malick ba mu demee aji ñu fekk kaaba ga tëj mos naa dégg sëñ Abdoul Amin di ko mu ne xam nga loolu euh, tooñ Alaaji Malick la mag mu toll ni Seydi Hadji xam waxtu aj ne aj dafa am ay weer weer wuñ koy def am fan yuñ koy def mu bàyyi ba aj ga paase muy dem di aj yi lu mu fay uti xanaa tourisme la doon def bon te Maodo ëpp na caaxaan xam nga ñu mu ne tëll bunt yi na tëll ubbeeku xam nga yooyu yëfi caaxaan la ay enfantaises la rek yu tegul fen yooyu wax yooyu nañ ko tëral ci suuf waaw Maodo am na leneen lu soxla lu dul loolu li mu bind xilaasu zahab bi kifaayatu raaxibiina ifaamul munkir aljaani fala budda min shakwa ah abada buruux ah rufaat téere yi Maodo bind ni mu toll kenn xamul nu mu toll ngay wax sa waxu caaxaan yooyu yooyu nañ ko jël teg ko ci suñ suuf suñuy sëriñ suñuy sëriñ lañ nañ leen tàgg lu ñu men man waaye nañ ko teg ci sharia ak sunna kon shérif walaw kalimatay ni rek nga sànni ko nit ñi ñaanal leen yàlla ñu door la bàyyi nga dem ngeen xam ne ko bu baax li ma ne wax doomu Chérif Makki la baayam moo fi indi woon malaanu xadara boobu jëlee ko Fès jox ko Idrissa bu Cerno Bachiru Muntaga daa Cheikh El Hadj Omar mu indi ko fii yéen ñépp gis ngeen ko barkeelu ci dama ci fiir na malaan boobu dama ci fiir du toujours laa koy génne ba mu ñëwee laa ko utal valise bu bees tàq ci laa ko tëj valise bu bees tàq laa ko utal ci valise boobu laa ko tëj te du balaa faa génn lu wóor a ko fay génne ndax du malax fa mu jógee ak ki ma ko jox ca zawiya Cheikh Sidi Ahmad Tijaani lañ ko ko joxe waaye waaye mënoon na ca xalaat keneen waaye mu xalaat ma ci man mu xeebu mi ba indi ko jox ma ko loolu rëy na lool ci man yàlla sedd na ko Chérif Maki yal na ko yàlla fay loolu dafa rëy lool lool lool lool ci man moo tax boo demee nga ne ko dama ci nay lool lool lool du tout le temps lay génn fii de li ma ci fas yéene daal mooy at ba at mu génn benn yoon mooy biñ ne àjjuma bi mujj pour ñu def suñu gàmmu gi 31 décembre loolu laa ko fas yéene di génnee bu dul loolu du génn incha allahu taala yal na yéex bu ma gisee ku am solo ku faatu ma dagg ci tuuti mosal ko ci ku solo laa wax na doon nag bu fi kenn am néew yooyu rek ñoo naan ma sarax ci sama néew bi déedéet néewu kilifa yee tax may wax de ku fi am néew wax ma ko it perkaal yii lay dem jënd jox la na la yóbbul <laughs> na na leer de waaw na leer te loolu kenn ñaanu ko yàlla kilifa gu faatu yombut bi waaw loolu kenn ñaanu ko yàlla waaye nit ñi damay loo wax rek ñu ngi bàyyi xel boo fi ñëw naan ma sa malaan mi laa bëgg nga mosal ci sama néew bi dana tarsu de du ma ko ci may mën naa ko may nag beneen malaan waaye <laughs> na leer nañ ñi ni bëccëg ah, man lu may wax rek day leer kon nag boo demee nag sa papa daal bég nañ kontaan nañ te dinaa ñëw ziyaare si ko incha allah xam naa du doon semaine bi ndax semaine bi dafa am fu may demati waaye bu ñu ñibbisee rek ci kattanu yàlla daa ñu ñëw ziyaare si ko ci eh, jumaa ja moo xam xëy na waxtu tàkkusaan lay doon wala tisbaar waaye daañu fa ñëw nuyu ko ziyaare ko insha allahu taala nga nuyul ñu ko bu baax ziyaaral ñu ko yow it ñu nuyu la yóbbante la ca góor ga si bi xotaan moom alaaj ci jar ñang bi soriwu ko pour bésam bi insha allahu taala cheikh kañ laati le 15 la insha allah bii di ñëw nii ca puut puut ak si bi xotaan benn la waaw. wallaay dëgg la. salaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina muhammad ibni abdillahi wa ala ali baytihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin ginnaaw bu ñu sante sangu sang si sayidil wujud sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam incha allah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ziyaara bi am nañu yaakaar bu mag ne yàlla nangul nañu ko ndax du hasard mm-hmm. ndax fi ngay jóg dem fa dafay fekk nga bëgg fa kenn forcé wuñu kenn woowuñu shérif néewuma demal nuyu yi sa sa papa Chérif. te géej naa fi fii wallaahi géej <laughs> naa fi de. ajib ziyaare lu waaw ajib wa garib eh, sànq bi may bi ma jógee rek. Mm-hmm. dama woo Cheikh Mansour ma ne ko dama bëgg a dem xadara ji dama doon def di programme de temps en temps ma bàyyi kër ga daara ja dem ci benn góor yàlla bu baax rek ma xadaraaf. rek sama xel ñëw ci ci moom mi waaw ma jóg ma woo Cheikh Mansour bi may toll buntu Pikine ma ne ko ah sëñ bi ci loo nekk. mu ne ma man kay maa ngi nii. Mhm. man rek maa koy génne nag. <laughs> waaw ci lu ma ko nekk day bàyyi. da ma ko fekk da koy bàyyi ñëw ànd ak man. Mhm. alhamdulilah bi ñu ñëwee ba jege si xaw ma amoo yi trop. Mhm. ma laajte ñu ne ma côté bële la ma daja ak benn 4x4. Land bu ñuul <laughs> mooy otoom bi. <laughs> waaw bi ma gisee oto bi rek. ma ne oto bu mel nii heure bi ak fii xam naa ne bu dul moom foofu la jëm. ñu ngi nii seede du ma waxantuwu ma. lu leer la ma topp oto bi mais di sikki sàkk ma laajte ma ne leen kër Chérif Ibrahim Haydara mm-hmm. fan la ñu ne ma toppal oto bële ngay gis moom la <laughs> waaw benn waa ji mu ngi fii ci ja garage bu nekk fii. mu ne ma oto bële ngay gis. moom la ñoom ñii sax dañoo dañoo dañoo jaaxle. wallaay wallaay ma topp oto bi. <laughs> jox ko distance topp ko ba fii bu mu gaaree rek ma gaaree dugg. ma bàyyi ko ba mu dugg balaa ma may gis. wallaay gisuma ma yéeg. <laughs> waaw bi ma ñëwee fii tamit kenn xaw ma kenn. waaye ñëw barkeelu rek. mu ñëw toog nële. Mm-hmm. bu mu ñëwee moom xàmmewu ma sax bu baax. <laughs> déedéet wallaay dëgg la waaw ndax dañoo ñëw nekk taalibe rek. wallaay dëgg la ñëwuñu leneen taalibe rek moo ñu fi indi. ndax xam nañu loolu rek moo ko ñor. la waaw te yàlla def Chérif Mouhamadul Makki. Mm-hmm. bu nekk magam mhm. nekk soppeem mhm. nekk xaritam te yàlla moo ko def mhm. waaw yàlla def ko def zahiran wa batinan waaw du nekk ñu di wax nii rek ngir ñi ciy kontaan déedéet loolu ruux seen ruux yi yàlla def ko boole xam nga di nga gis sëriñ wala nga yàlla boole la ak kenn fekk Euh, amul courant bu nekk seen diggante. yàlla dafa def courant seen diggante. Mhm. moom mii ak Chérif Mouhamadul Makki. Mhm. Thierno Cheikh waxatuma Thierno Bachir waxatuma. wallaay waaw donc nag incha allahu tànk yi tànku ziyaara la. Mhm. Eh, fu ñu dem bu ñuy war a wax wala keneen ku mu mënta doon boo ñëwee ci xadara bi bu dee lislaam rek. moo la tax a jóg. nga ci woote walla nga ci fàttali. man ci sama gis-gis boo ñëwee ba yegg si fii <laughs> na nga sàkku ñaan rek dem. ndax lépp lu ñuy wax ci lislaam lépp lu ñuy wax ci tijaaniya lépp lu ci commenté shérif mu ngi ci fajar bëggee ci la nekk waaw loolu yàlla xam na ko moo tax nag du ñu fi wax dara loo xamante ne eh, ci wàllu tijaaniya la wala leneen déedéet dañuy sant di dañu koy sant rek di ko gërëm di di di di di wax ne mbokku taalibe yi fi ñëw ak ñi nga xamante dañuy xool à travers internet bi mm-hmm. dañu xam ne shérif mii day shérif la ci deret shérif la waaye ci wàllu ruux ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ci des nag jamono eh, lu nekk di nga ko dégg lu nekk dinga ko gis bu dee am na foo jëm mm-hmm. waaw waaye nag alhamdulillahi yàlla may ko kàttan boo xamante ne ak xel boo xamante ne li mu jàpp du ko bàyyi te xam na fi mu jëm. waaw waaw waaw nekkuñu di waxantu nag. wallaay loolu kay yàlla la ko wax <laughs> loolu yàlla moo def loolu. wallaay te incha allahu xam naa ku nekk ci ginnaawam. ci wàllu zaahir di nga gis sa bopp ku nekk ci ginnaawam ci wàllu baatin di nga gis sa bopp ndax fi mu jëm fi mu tegu ci yoonu siraatal mustaqim la li muy wax léegi shérif wala sëriñ kilifa diine bu dee lu baax nga bëgg neex na xàmme neex na xàmme mu ngi doon wax léegi Cheikh na Tijaani dafa wax ah ida samiatum anni cheyan fa zinuhu bi misani lchar yaani alchariatu fa in waafaqa fa amalu bihi wa in xaalafa fatruku loolu doon wax léegi bu ngeen déggee ci man lu mu monta doon jël leen ngeen def balance ngeen teg fii li ma wax wala li ngeen dégg ci man ak chariatul islam yi ngeen teg ko nii atte bu dee méngoo na rek xamlante ci man la jóge bu dee méngoowul sori leen ko ngeen bàyyi ko fàttali ko ah tey jamono bu ñu toll mm-hmm. politique bi bari na mm-hmm. woote yi bari nañu mm-hmm. ngir lan àdduna rek waaw zahir bi nag dina nekk uh, yàlla ah wala mu nekk waaye li ci gën a bari ay ay tàppale la rek bëri na waaw visé wu ma kenn waxuma kenn nag waaye ñu nga xamante ne xam nañu li nekk ci réew mi mhm. xam nañu loolu waaw waaye shérif mi bu dee yàlla rek moo tax bu dee Cheikh Ahmed Tidiane kese dong képp moom ngay wut boo ko gisee doxalinam ak ni muy doxee ci zahir ak baatin di nga xam ne kii ci yoonu siraatal mustaqim la nekk ci Cheikh Tidiane fi mu tegoon tànkam mu ngi fay jéem a teg tànkam mm-hmm. fi maamam sallallahu alayhi wa sallam tegoon tànkam mu ngi fay jéem a teg tànkam waaw li ñu koy ñaanal rek yàlla guddal fan wi yàlla nangul ñu ñun ñi nga xamante ne ay taalibe lañu ñun ñëpp yàlla gën ñu may suñu pas-pas suñu xol yi yàlla gën ñu dëgëral ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam insha allahu yàlla musal ñu ci lépp loo xamante ne def ñuy génne yoon boobu noonu ci barke yonent bi bàyyil bàyyil ñu ko fii ba ci kanam a ndax ñu nii ci jamono bi dañ ko soxla lool koo xamante ne borom xam-xam la te ragalul dara borom xam-xam yi bari nañ fi waaye dañoo ragal <laughs> waaw dañoo ragal ndax munoo nekk xalifa wala nga nekk chéri maanaam sëriñ ñu naan la kilifa diine nga ngay dégg wala di gis yoo xamante ne teguwu ci yoon nga te doo ci wax dara mm. dañu waxante dëgg chérif mm. bokk na ci ñi gën a taxaw fii ci Sénégal loo xamante ne gis nañ ko ñu xara seen tubéy ñëw taxaw waaw shérif mii yàlla moo li may wax ni ñëpp xam nañ ko waaw donc loolu dama koy gën a yeesalaat rek di gën a yeesalaat ñu xam ne loolu dëgg la incha allahu yàlla na yàlla guddal fan wi teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim yàlla sàmmuñu ci barke yonent bi sa barke maam incha allahu dañu amoon rendez-vous dañu defoon yëfu taalibe rek bu ñu jullee timis rek hmm. daw dem ci rendez-vous bi. dëgg la waaw loolu rek ñëwuñu woon wallahi pour toog wala kii wallahi bu ñu mënoon sax làqatu dawaat. loolu lañ doon def. waaye xam nga boo gisee ak sa baay. <laughs> ak sa soppe ak sa lépp. xamuñu sax fan la féete ndax tellement que dafa jaxasoo. suñu suñu suñu diggante ak moom. waaw donc nag incha allahu chérif ñu ñu ñu. ñu taxaw foofu rek. dañ doon tijji rek ñu bàyyi leen ngeen ngeen continuer ñu ngeen yeewi ñu. ñu ngi ñuy suñu suñu sëriñ bi nekk fii suñu xalifa bi. waaw ah, incha allah moom tamit ñu ngi koy jiite incha allahu te suñu sëriñ la ñun ñëpp waaw kilifa la borom xam-xam la ku baax la waaw mm-hmm. ah, yàlla guddal fan wi bu ñu ñëwee fekk ko fii tamit mm-hmm. dañuy dañuy gën a am yaakaar mm-hmm. <laughs> dañuy gën a am yaakaar tabarakallahu sa salli ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah kon ñu bàyyi ko mu daw waaye waxtaan man damay bëgg ku jàngal xoraan balaa may waxtaan ci la ma papaam ne ma déet matul ko kañ bàyyil sa doom jàng keroog moom mi <laughs> tabaarakallaahu xaari ul quraan la borom alquran la keroog moo fa jàng alquran ju neex bii tamit bi ma yegsee ba toog rek sama xel ci yoon la njëkk a dem te xaw ma woon ne tey daañu gisante seetal loolu kon ay dara yow yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla may la lu daraja yu ëpp yi mu jox sa wayjur ndax way jur woo gis bëgg na doomam ëpp ko daraja ëpp ko barke loolu yal na la ko yàlla defal defal ko sa soppe yi nga àndal nga xam ne yaay ñoom ñooy yow fii nag sa kër la soo fi ñëwee fekk ma fi yaay borom soo ñëwee fekkoo ma fi yaay boroom ku fi mën a am cër ku ne yaa ko fi ëppale loolu xam nga ku fi mën a am cër ku yaa ko fi ëppale ndax al aqrabu awla ah, an nabi awla bil muminina min anfusihim te yow anta min <laughs> sallallahu alayhi wa sallam loolu la yàlla dogal an nabiyu awla bil muminina min anfusihim wa amwalihim kon nag yow min saydil wujudi sallallahu alayhi wa sallam wa anta min afhaadihi kon nag boo ñëwee ci kër gi moom xawma kan ah sëñ Babacar borom kër gi la de waaye wóor na ko ne ah yaa ko fi jiitu ndax yonent bi lu Seydi Hadj Malick am mu ko amee ci rasulullahi donte Seydi Hadj Malick la waaye moo jël sharafu tiinam nëbb ko feeñal sharafu diinam kon nag loolu sëñ Babacar danañu ko nangul Aydara eh, eh, Karara yal na yàlla sàmm la ma dollil la ci li may faral di tooñee shérif yi pour bëggalee leen ko ba muy xalel la ko yaayam ne woon Karara loolu yéen rek ko am kenn amu ko yal na ko yàlla defak ak mu sax daa iman te muy lu dëggu daa iman bég nañ kontaan nañ sant nañ la kon nag ngeen may ma ma gunge ko te jox kàddu gi tabaarakallaahu Cerno Ibnu Omar moom it mu jooyal ay kàddoom su fekkee ni ci tukkulóor la ko bëgg a wax moo ko moom la gën a jekku na ko wax ci tukkulóor Bachir firi ko ci wolof su fekkee lu ko ci gënal rek moom mooy borom jotaay bi Ibnu Omar ndax Cerno Bachir bu ñëwoon ñun ca suuf la ñuy wàcc sax toog di ko dëgg waxuma ci kaw fii de ca suuf ca bunti kër ga kon nag sëriñu Cerno Bachir bu ñëwee fii moom mooy borom jotaay bi te damay wax ne ku bëgg a xam Thierno Bachirou digganteem ak Thierno Ibnu Am euh, Thierno mooy diggante sëñ Abdou ak sëñ Hadi Touré loolu dinaa ci ñëw léegi ci kanam diggante sëñ Hadi Touré ak sëñ Abdou Aziz Dabbaax mooy diggante Thierno Amadou ak Thierno Bachirou bismillah Thierno. muy Thierno Ibnu Omar Ba yàlla dogal Thierno Ibnu jóge Mali ñëw fi ànd ak Thierno Bachir ci ay ziyaar yu bari. ñun ñu nekk ay doomam tey mu nekkal ñu fi Thierno Amadou karu Ba ñu am ci fierté lool ñun gan suñ ko amee mën nañ ko yóbbu fu ne waaye man saa yu ma amee gan fii laa koy indi Hadra Cherif ndax Papa Cherif ku ne xam na sama diggante ak moom na ump am na ñi nga xamante ni fii dina leen ump mais Papa Cherif fa tabaarakallaa dañuy toog ba une di du matin di waxtaan mu nekk suñu conseil man ak tafsir Abdourahmane gay ak Chérif Mamine dara waaye tey yàlla séddee ma tafsir Abdourahmane Gaye ak Chérif Mamine ñuy ànd ànd bi rafet lool fa tabarakallahu waaye ñun ñu dellu jël papa Chérif mu nekk suñu kilifa moom mooy sama conseiller fa tabarakallahu lépp lu may def moom laa ciy waxtaanal ba ci liggéey su ma bëggee liggéey benn mbir dama koy ne papa Chérif lii laa bëgg liggéey mu ne ma liggéeyal te bul déglu nit déglu ma man maa ngi fi di la ñaanal Cerno Amadou Koro Ba mooy sama kilifa mm. mooy sama sëriñ moo ma jàngal alquran moo ma tarbiya moo ma jox salaatul fatiha waaye fii ci ndakaaru bi ma ñëwee Sirif Ibrahima ay dara mooy sama kilifa dafa am lu waral nag ma def ko ndax man duma jox sama bopp n'importe qui parce que dama am kilifa kilifa boobu bi mu fi jógee itam dem naa ci magam Cerno muusaa Ba mag Chérif Ibrahima saa yu nekkee Sénégal dañ fay ànd Sénégal rombu kër yëpp ñëw kër Chérif du hasard beneen bi papaam di sëriñu Chérif maanaam papaam mooy sëriñu Chérif Ibrahima Cerno Basiru Taal papaay kii mooy sëriñam mooy Cerno du saw xoore ñiwa boroom xam-xam yu bari ci Sénégal moo leen jàngal borom xam-xam yu bari ngay dégg muy Fuuta di Mauritanie di Mali di fépp kooku moo leen jàngal ñi ngay ñi lay yéem ci tukulóor yi tey wala ñu leen fii wax ay xalifa tey kookoo leen jàngal maanaam ku jàngal Ceerno Basiiru Muntaqa Ceerno Saama sa jaar na fa ku jàngal Ceerno Basiiru Muntaqa Daaha Cheikh Umarul Fuutiyu xam nga ne suñ la waxee jàngal na ay kàngam waroo ko weddi tey kooku rek fi mu toll ci yàlla Ceerno Basiiru Taal ni mu mel ci yàlla ni mu mel ci bëgg yàlla li yi di wax maanaam moom du bëgg ku bëggul yàlla Thierno Bassirou Tall ku bëgg yàlla rek lay bëgg ku bëggul yàlla du la bëgg moom soo toogee ci kanamam sax soo bëggul yàlla pour nga jox ko loxo ak a jafe soo dee caaxaankat sa Thierno Bassirou Tall boo dee caaxaankat pour nga jox ko loxo ba mu jël ko ak a jafe yombul de. kooku nag moo dellu ne Chérif Ibrahima Aidara yu yàlla la Chérif Ibrahima dara ku dem la ku yebu nag moytu ko jamono yee am na lu ma fi fekke lu fi xew ña doon wax ci moom gars yi wax nañ ci kon duñ ci wax looloo ci gën a ndaw mais nag li ko gars yi wax képp ku nekk ci mission faw gars yi am lu ñu wax ci yow faw gars yi am lu ñu jaar pour yàqal la mais nag ku jag ku Cheikh Umar di wax loo Cheikh Umar Fuuti yu taal ku muy wax loo no Bachir ndaw na ci yàqal la kooku kenn mënu koo yàq kon fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin pour wax leen ni rek man shérif laa am shérif Ibrahima ay dara moo tax gan gu ma am su ma xalifa général seet si woon ne ma dama lay seet sa kër ma ne kon kaay ma yóbbu la kër shérif Ibrahima. mi ngi lay jéggalu waxal la neex. wallaay nee na wax nañ sa ginnaaw waaye nee tànk yi nee na li njëkk yëpp mu ngi may ñaanal yàlla yàlla na yàlla fay yiw nee na man maay sababu pour mu ñëw fii nee moom xam na shérif bu baax nee na moom gis na ko moom ak Thierno Bachir seen ànd fa tabaarakallahu ni mu rafete euh, nee na xam na moom xel confiance bi Thierno Bachir am ci Chérif Ibrahim nee na maanaam mbëggeel maanaam xabb bi Thierno Bachiru am ci Chérif nee na moom munu ko munu ko misaal nee na ñëpp la léegi. nee na léegi képp ku xam Thierno Bachir te sës ci moom. nee na boo ñëwee. nee na di nga am ci shérif bëgg far force. di nga am ci moom teraanga far force. waaye nee na shérif mii nag. waaye moom mii itam Thierno Ibnu Marso nee na am na lu mu gis ci shérif. nee na loolu moo indi moom mu bëgg ko. nee na dafa gis maanaam sirif ku suufee la ku wàcc la ku wàcc boppam la nee na xam na ko ci moom nee na loolu moo waral moom mu ñeme ko nee na bu fekkoon dafa mag dafa dafa dafay réy réylu nee du ko du ko ñeme waaye nag nee na tukulóor yi am na lu ñuy wax nee na bu géej gi feesee dell day day day toog lu yëngu de nee na lépp li nga xamante ni mi ngi mi ngi bëri rek mu ngi mi ngi fees dell di yëngatu feesul nee na bërigo rek nee na bërigo bu da amul ndox nee na maanaam yëngu-yëngu yi day bari nee na waaye shérif mii nag nee comme moom nee na ak ñi njëkkoon nee na moom ñoo noonu la mel maanaam nee na kii shérif mii comme nit ñu njëkk ña nañu meloon shérif mii noonu la mel nee na moom mii li ko indi woon fii nee na pour wormaal la yow mbele maam ndax ndax nga julli ndax mu barkeelu ci waaye nee bi mu ñëwee nee na mu summi yëreem summi léppam jox ko nee na mag ñu njëkk ñoom ñoo doon def loolu nee na kenn ku ci ñoom nee na day jël place am jox keneen ki nee na kenn ku nekk dafa màggal keneen ki nee na ñëw na e xaat ci xadara bi nee na dañoo ñëw pour ziyaar si la nee na ndax yow dañ laa war a ziyaar nee nee na bi ki nga xamante ne maam surtout yonent bi nga direct banga kadi ko sharif bange gandal makko nee na waaye loo doon sharif sharif nee na xam bi moo ko ëpp nee na yi cër yëpp la ñëw pour ziar si la. nee na ñu ngi koy ziare nag ci la mu nekk taaliba Cheikhuna Tijaani. nee na li la jullit yi bëggee. loolu itam mi ngi la koy ziare. nee na jullit ñi duñu bëgg ku yàlla bëggul. nee na waxatuñu nag ku mel ni nitu yàlla bi Thierno Basiru. waaye moom tamit nee na ñëw na tey daanu si ci say cof ci say ci ñi la bëgg. ci ñi la sopp nee na dépp bi ñu la gisee ba léegi boobu lañ xam ne boobu lañ am cofee ci yow. nee na nag li gën tey feeñ te nit ñi di ko gis mooy jéggi jéggil boppam ay tànkam ba yegg si fii nee na ndax nekk ak yow rek ci Ceerno Bachiru nee na loolu rek taxoon nañu bëgg la waaye neena na képp ku bëgg nu Basiir nekk ak moom rek ñoom bëgg nañ la nee na Ceerno Basiiru nag ah, nee na Ceerno Amadou bari nay taalibe de nee na ni Ceerno Basiiru mel yombul de nee na gannaaw Ceerno Amadou nee na baaxal na nee na rafetal na o oh, maanaam def na ne ñoom seen wayjur la nee na mu ngi leen di defar ci ba côté waxam maam ci tegtalam ak ay pexeem nee na mi ngi leen di fexeel lu baax nee na mi ngi fexe ñoom ni ñu jokkoo ci seen biir nee na mi ngi leen di jëriñ nee na du ci yére. nee du xaalis. nee na du lenn. nee na du ci ñaan. lépp mu ngi leen di jëriñ. Mm, nee na noonu kooku nag bëgg ko waajib la. nee na boo rewee soo toppee soo toppee maanaam loolu itam. wallaay ndeysaan. Mhm, yetti mhm, nee na bokk na ci mokkal. <clears throat> nee na yow ko ngannduɗaa ko giɗo bamma nee na ki nga xamante ni maanaam sa so soppe way jur la baaba e nee na papa ak sëriñ nee na ñuy ñoo tolloo nee na ñii ñaar ku leen bëgg yow kooku nag da nga ko war a bëgg nee na moom nag loolu la la gën a bëgge nee na yow nga seede ko nee na yàlla na bëgg gi nekk te yàlla rek tax nee na fekk ci biir xol yi rek la nee na ay bëgg yi nga xamante ni sans exception la Abdoul Aziz Dabakh nee na ni ko ni maam Abdoul Aziz Dabakh waxoon way juram moom Thierno Amadou Sow. nee na moom ak way juram Thierno Amadou Sow mës nañu ànd ci waawan. nee na boobu Serigne Abdou mi ngi dund. nee na ñu yegg si mu ubbi rawdu bi ba ci biir ñu dugg ba ca biir rawdu ba. nee na ñu ziyaar ñu pare. nee na moom Serigne Abdou mu taal otoom. nee na ñu topp ci kawam. nee na bañ génn dëkk bi. nee na mu taxaw moom El Hadj Abdoul Aziz Dabakh. nee na boobu sax maanaam maanaam jamono jooju ñi ngi nekk ak papataal bu Cherif Ibrahim. nee na papataal wi wax ko Thierno Amadou Omar. nee na nga seedeel ko kii ku ma bëgg la. nee na bis bii tey. man Seex Xaaji Abdou Aziz Dabakh bis bu ma bëgg la. nee na na ko si Cerno Amadou seedeel. nee na bis bi dama ko bëgg. nee na lu mu bëggee Cerno Amadou. nee na depuis bi mu gisee Cerno Amadou. nee na dafa gis maanaam Cerno Amadou fi yonent bi teg tànkam rek fa la teg tànkam. nee na sunni yanke rek la. i hannde nee na waaw tey sono hoddiranoo baama nee na bu fekkoon yàlla dogal na seydil haaji malik mi ngi dund sifonaaki no nee na melul ni kii mel nee na du ko bëgg nee ñu def ñaan waaye moom it nee na nga seedeel ko cofeel boobu noonu nee na yal na leen yàlla bàyyee nee na nag nga def ñaan nee dafa ñëwoon ñaan si ñaan rek ndax way jur bi Ceerno Amadou Umar noonu nee na ñoom noonu rek lañ gisoon muy dunde fépp fu mu fekk shérif yi njabootu Cheikh Umar nee na moom taalibe la rek nee na moom it yal na ko yàlla may nekk taalibe nee na nga def ci ñaan nee na nga jigal ko nag nee na toogaay bi yàgg na nee na mi ngi ñaan yàlla eh, nee na na yàlla yokk faydu bi na yàlla yàlla dolli anwaar yi nee na yal na yàlla may la wér. nee na xabul booy xabul beeg xibaar beeg yépp yal na ko yàlla yokk. nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah. est-ce que ah waaw dégg naa la maa ngi woon ci suuf dégg naa la yëpp bi ngay wax sa diggante tafsir Abdourahmane Gaye ak Chérif Mamin yëpp maa ngi koy dégg ndax am na pàllar bu nekk ci suuf eh, eh, xaddimu Quraysh ñun ñëpp jàng nañ te ki fi ñëwoon sama doom la waaye sama nawle la ndax deretu yonent bi la su baayam ñëwoon noonu laa koy defal kon moom bu ñëwee noonu laa ko war a defal moo tax ma wàcc ba ci saal bi tàggatoo ak moom ak uh, mbokkam yi mu àndal bu fi way juróom ñëwoon nit noonu lay def te doomu jaan jaan rek la jaan bu la màttee doo seet bu ndaw ba la wala bu mag ba la ah as doomu jaan bu la mat jaan bu la màttee doo seet ndax doom jëla wala yaay jëla moom dangay ngay uti ku ko luggu rek ba noppi nag nga door a seet ay pexe waaw kon nag ñu nuyuwaat di leen ziyaarawaat eh, Seydi Doucouré jóge ba Mali tabaarakallahu gis nga kii fu ma jumut ñu ngi door a gise de ci tey ci internet bi rek te teraanga bu ne daf koy wax Omar mii Omar ak Abdou Aziz ñoo nekk ci régie bi ñoom la ñuy jot dañuy foog ne ñi ci bari nag dañuy foog ne man la ñuy jot ndax ñoom ñooy tontoo noonu te noonu laa ko bëggee bari na ko leen jot da ngay surtout Abdou Aziz Seck da ngay moom mi yore euh, télévision bi da ngay foog ne man maa lay tontu fekk moom moo lay tontu kon loolu dañ ciy sant yàlla bu baax moom mii am na ñeneen ñu jóge woon Mali li ko dal moo ñu dal moo ko dal. amul fu ñuy dem ci àddina bi lu dul lu mel ni xam naa dina ñëw ci kanam tuuti wala ajjuma bii di ñëw xëy na koo xam ne moom yaakaaroon naa ne sax bu ma ko gisee boo moy tuuti day sedd ci sama loxo te mag la borom kër la e, Poitiers la ma fekk fi mu jógee ba yegg si Poitiers huit heures de route la dawal pour fekk si ma Poitiers dawalaat huit heures de route pour ñibbi kii 24 heures loolu nag ku yaakaar ne yow la nax nga sa bopp moo tax toujours li may wax mooy yal na ma yàlla dimbale bi sama bakkan bi bu mu ci feeñ te incha allah am naa yaakaar ne du ci feeñ waaw ndax inna nafsa la amaratun bi suu lu ca topp illa ma rahima rabbi al nu yàlla boole ci ñooñu kayta gis naa la gis Cerno ñu ngi lay sant cofeel boo am ci ñun wakafa billahi shahidan am nañ ci yow bu ko keroog ñu gis la ca jotaay ba fële ca kër euh, euh, Ndofaan ñaar a ko waral bi jiitu moo di sa diggante wayjur ak Thierno Bachir Mountaga Daha Cheikh Al Hadj Omar ma yëg ni Thierno Bachir bëggee sa pàpp cofeel bi mu am ci moom moo wàcc ba ci yéen wax nga ko léegi rawati xalifa bi muy shérif shérif moom man daf ma yéem shérif moom du doomu aadama shérif moom man mosuma gis doom nit ku mel noonu koo xam ne bëggul daraay àddina pour man de mosuma te li ma toog ak moom ci jotaay mu ngi bëgg a yàgg waaye nga ne ko ñaanal ba mu ñaan at kenn mënu ko ci kaw suuf ba keroog jotaay bi moo ci mujj mu lank ne du ñaan ñaanul ba tey dafa ne nañ jox Chérif Tall mu ñaan yooyu nag yombatut ñu mel ni yéen rekk a ko mën ndax tarbiya bu mat sëkk yombatut lii sama doom wax léegi Chérif wax bu am solo la nit ñi daraja ak woote yóbbu na leen foo xam ne <laughs> laa ilaha illallah ci am na ci benn waaye bu ñëw ba ci man ne ma billaay li la li nga am nii di modeste modeste lu nii su ma ko yoroon tukkal àddina ma tontu ko ne ko loolu tax yoroo ko ndax yàlla du la jox nitam jaamam yi pour nga di leen foye déedéet yàlla du la jox jaamam yi pour nga di leen foye mukk loolu yàlla ëpp na ko ñii foye nag ñooñu wàllu seytaane la waaw ah, <laughs> xam nga ne moos du ma tudd benn musicien di tooñ waaye xam ngeen waaye ma tudd ñi fi newoon xam nga ku mel ni tey Bob Marley wala Michael Jackson wala tëgg barab ñu jënd billet yi un an avant te da ngay taxaw ba jeex taxaw taxaw doo toog amul toog taxaw ba jeex takk ñetti waxtu nga taxaw ko man dama naan ñii est-ce seen bakkan yi am na roos non loolu loolu loolu seytaane rekk ko mën ah rasulullahi daf daan naafila ba tànkam yi gand mu jël benn bi di ko kolkolal ci benn bi yàlla lu yàlla wax taaha ma anzalna alayka alqur'ana li tashqa pa mooy tegal ha sa ndëggu loolu lay firi pa mooy wada tegal ha sa ndëggu tànk boobu ngay kolkolal teg ko ci suuf mooy taaha loolu lay firi de di tekkiwaat turu yonent bi ci turu yonent bi la bokk taaha maanaam yàlla def ko ne ta yàlla moo mën a wax taa mooy yow mu taaha yow rasulullah tegal ta sa tànk ha sa ndëggu maa diit anzal naa may wàcce hada alquran alquran ji ci yow li tasqaa ngir nga texe wa yi déedéet dama ko wàccee ci yow pour nga texe ku la topp texe mu yëkkatiwaat ne yaa ayyuhal mudammil yaa mu mudassir nga gis koo xam ne day fay te la ñuy fay buñ la ko waxoon addi yow nga dara sa gémmiñ cerno xam nga lu billet di jar quatre cent mille benn billet am na ko war a tëgg si France ñëwagul de ñëwagul xaw ma nu mu tudd Abla ma kii sawaay xam na ko moom Malick Diop moom ci yooyu lay dox moom falaa ko bàyyi sax mu nga France waaye boo moytuwul dana sàcc seetaan ni ko waaye doo am billet ndax loolu du ko ko jaral benn billet quatre cent cinquante mille lañ koy jaayee benn billet laa wax de te billet yi jeex na guichet fermé la te waaje kenn xamul lu muy wax man boog xaw ma lu muy wax wax dëgg yàlla billet booba jaraluma téeméeri franc CFA bii jaraluma ko te billet ya jeex na bu yàgg car na te ñay toog dañ leen di wàññi ñay taxaw mat lañ leen fukk ñay toog lañ fay buñ la ko waxoon moom àddina ay millions la ñuy fay ñay toog ñooñu la ñuy wooyee VIP ñooñu ay millions lañ fay pour toog ki fay 400000 taxaw moom 450000 taxaw. Cerno Suleymaan nit lu bon rek la bëgg waaye nag loolu moo war a am ndax boisson dafa cher te ndox mu ñuul mi yomb lool wax naa ko fi keroog eh, boo gisee ndox mu ñuul yomb mooy faatiha pour ñëpp jëriñoo ko la boisson boo gisee mu cher du pour ñëpp ko am njëg gi demal jënd ko amoon muñal looloy jawharatul kamal ak salaatul faatiha <laughs> jawharatul kamal ndox mu ñuul la ñépp a ci bokk yam ku ne mën na ko jàng jawharatul kamal nag boisson bi gën a cher ci boisson yi la ku amul njëg gi toogal nanguwul lépp nanguwul <laughs> leneen moom njëg gi rek la nangu njëg gi nag mooy ndigal ak njàpp mu tooy wala njàpp mu tojabut jeex na loolooy njëg de am ci ndigal ak njàpp mu mu tojagut jeex na de loolooy njëgu jawharatul kamal moo tax léegi nga dégg kuy jéem a jam tarixa bi naan waaw alxuraan jaa ngi nii moo mën nga tiim te tiim kaamil bi bokk ci mënoo tiim jàng kaamil bi yor kaamil bi de mën nga tiim nag yor ci jukki fokk kaamil bi manki wala xale ba ca daara ji di jàng alxuraan mën na ko jàng te du yor njàpp waaye ab jukki la cay yor waaye du kaamil bi kaamil bi moom laa yamasuhu illa almutahharun kenn du ko laal te yoroo njàpp ba xara be naa si mu ne ñum ñeme bo boo ko laalee te yoroo njàpp am nga bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yi boo yónni woon sa doom ne ko jottali ma ko te doom ji amul bàkk amul njàpp yow yaay am bàkkaar yow mi ko yebal ne ko indil ma kaamil bi kon yooyu Cerno Omar bu Omar ibnu Omar ñu ngi lay sant li ma waxoon léegi nag pour jox suñu sang bi mu te jël ñu waxtaan wi nga ñaan ñu ñaanal la nga jiite ñu gee fa tabarakallahu ndax xam nañ liñ ci jublu benn ikraamul dayf waajib man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfahu te nit lam am rek lay terale ñun lii lañ am ah ganaar moom kunte kunte yi bëgg nañ ko waaye lii dàq ganaar waaw kunte kunte yi nag boo tegoon lii teg ganaar ñu jël ganaar ñoom loolu lañ soxla waaw tabaarkalla ah ngay sarax ñu jiite ñu gee ñun nag suñ jullee gee ba pare suñu aada mooy dañuy naafi la ñeenti rakka maa tayassara min al quran soo ñu jiitee ñeenti rakka yooyu ak safa rekk rek tabaarkalla ñun ah suñ bàmba maase na ñu sant yàlla ñu ngi la koy ñaan waaw mu ne